wird alhamdulilahi rabbil alamin beneen ba ca des mooy daf la dénk askan askan woowu mu la dénk sàmm nga ci ñoom parce que moo ko wax dama jël ci sama nguur am lu ma la jox ëllëg dinaa la ko laaj kon war ngaa fexe ba askan woowu doo fa yee finna ma jàpp ni li ñuy dund ci Sénégal dafa xaw a trop dëgg la dañuy politique waaye politique yamul ci àdduna rek ndax lépp loo fi doxal ëllëg suñu borom dina la ko laaj ma jàpp ne li nga xam ne suñu borom dafa parce que yàlla mun naa sa loxo par un déterminisme par le fatalisme mais yalla daf lay baye ak ce libre arbitre parce que daf na le la xol joxna la xel ma japp ne li nga xamne mo jëm ci troisième mandat ñi nga xamne jang philosophie quand on fait de la métaphysique quand on parle de l'essence de la science avec E deux S E N S science dans son essence elle est positive mais maintenant est ko utiliser à des fins négatives Lolo qui répliquait sur la constitution la constitution dans son essence elle est positive mais elle est utilisée à des fins de conservation de pouvoir Je suis le professeur Ismaël Major Fall le ministre que je respecte Diaponane, dans son fort intérieur. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Mam Diara Fam pour trois minutes. il se prépare.